mbokk kii di rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg gi ca la ñu yàgg si ak yéen kon la ca gën a fës ki ñu bëggoon a fal njiital police xibaar yi siiwaloon ko Ibrahima Diallo mujj nañu ko soppi communique tukkee ci ministre de l' communiqué tukkee kon ci conseil des ministres leer na léegi Abdoulaye Niang mooy toog ci booba poste Mimi Touré tontu Seydi Gassama bu Amnesty International gannaaw communiqué bu mu génne di méngale tolluwaayu ak ak fii ci Sénégal. Sénégal ca tàng yi Abdoulaye Wade amnistie ca waxtu woowu ñoom ñenn ñi gis ni Seydi mii li ñu teg ci kawam du yoon FIDH kuréel gémm ñi saytu ci àdduna ak yelleefu doomu aadama di sàkku ci nguur gi nag mu xam fu muy yem ci mbiri eh, Seydi Gassama parti démocratique sénégalais eh, plainte Ahmed Suzanne Camara bu APR eh, yaakaar ngir nag diffamation ay tuuma yu mu tekk ci kaw Bara Gaye yi di wax bi e, yoon euh, procureur xadar ji mu am ci yenn dossier yi na ko jublu it wane ko euh, ci bipp euh, dossier wàllu tàggat yaram danañu ci dikkit ci kanam tuuti yéene kaay yi la ñu xëyate ji Mamadou Mohamed Ndiaye moo koy faram fàccee ni studio yaatal loolu lépp mbokk yi ñu leen di euh, nuyu dellu di rafet loon bi ak euh, télévision Futurs Médias ni ñu leen ko waxee euh, benn fan ak léegi xibaar bi doon daw ñu doon wax naan Ibrahima Diallo moom moo nekk léegi njiital police waaye communiqué tukkee na ci talaata ji ci conseil des ministres loola ñu doon laam-laamee nag nee nañ la ñu war a jàpp bi yoon moo di ni kii di Abdoulaye Diallo commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle kon moom la ñu tekk ci booba poste moom. Abdoulaye ñaam euh, yi nag euh, da ñàkk ci suñu yeneen i xibaar ñu gën leen xamle ak moom kon moom moo nekk euh, njiitu police Bara Gaye moom ñu daal di koy déféré waaye ndawi parti démocratique sénégalais gis ni mbir mu yàqu la du leen tere kon wax nguurug Macky Sall ŋàññ ko ni muy doxalee ñu ngi sàkku nag ñu daal di teggi loxo kii di seen secrétaire général Bara waaye it Karim Wade nee nañ it euh, Macky Sall na jublu euh, ci yitte ji wax ji yàlla kàlla ji di kon coono askan wi Adiya Talla Mohamed Dia. tëj nañu Bara Gaye njiitu UJTL wante ndaw PDS yi fa suñu yéene banque seeni yoxo ngir wéyal seeni xeex. Macky su foogee ni dafay jàpp Bara ñun daf ñuy tiital day nax boppam ñun dañuy wàcc ci terrain bi ay doomu Ablaye Wade nañ dañuy continuer combat bi Bara nekk ci kaso bi Karim Wade nekk ci kaso bi le PDS sera toujours dinañ ko defante galgal kenn du ko yóbbante gis nga fii permanence bi jeunes yaa ngi fi dinañu réunir di xool yan stratégie doole li ko waral ci seeni kàddu nee nañu njiitu réew bi fi nekkoon dund na li ko gën a jéggi dayoo. lu avocat yi wax mooy dañ ko jàpp juge doyen des juges daf ko daf ko daf koy dóor mandat de dépôt article quatre-vingt bi moo ko waral pour offense au chef de l'État Ablaye Wade dégg na fi lu nekk tegal nañ ko jaat ni góor gi dee na coow jibul baltaakul démocratie Sénégal nag dem na tolluwaay boo xamante ni du boo waxee rek. nga ni man maay président de la république parce que moom gëmul ni ba tey président de la république la que ni jàpp Bara Gaye li mu wax dafa clair dafa am ay ancien ay ay ancien dignitaire du régime ay chefs religieux yoo xam ne dañu amoon passeport diplomatique ñu nangu ko te ca wet pour lan loolu. libéraux yi ñoo ngi ñaax njiitu réew mii rek mu jublu ci saafara jafe-jafe askan wi muy li gën a jàmp. Macky Sall nag bu yaakaaree ne mën na tere nit ñi wax seen ay soxla dafay sonn li mu war a def mooy jéem a jublu ci. askan wi na ba njabootu jàmbur daal jaamu askan wi wàññi ceeb wàññi diw wàññi gaz wàññi suukar wàññi saabu wàññi paas wàññi mburu wàññi meew wàññi essence wàññi courant wàññi ndox wàññi luyaas naxar tiis ak mer lañu nemmeeku ci ndaw PDS yi bi ñuy yóbbu seeni njiit Bara Gaye ca kaso Rebeuss ma nga fa kon ca rëbës moom ah, Bara Gaye parti démocratique sénégalais nag ñoom nee nañ danañu plainte kii di Ahmed Suzanne Camara bokk ci APR yaakaar diffamation kon eh, la ñu koy tuumaal wax wax joo xamante ni eh, dara mu ci libéro yi nag eh, di ci interpellé procureur xadar ak cawarte gi mu wone ci yenn dossiers yi na ko wone it ci bi ci waxtu nga xamante ni nag ñi ngi doon jublu ci mbiri Bara yi ca la ko Fatou Thiam député PDS dénkee waxee kon Nadia Talla ak li mu wax yàq ko wax ko Bara muy ay menaces de mort d'ailleurs porté nañ ko plainte ñi ngi xaar justice bi nag ci loolu ba xam lan la ciy wax bu fekkee ni justice bi tey justice dëgg la Ahmed Suzanne Camara dès demain warul tey si ngoon sax warul fanaan këram dañ ko war woo jëli ko démb woo nañ ko moom dégg naa si benn presse tey mu ne li mu wax moo ko wax mais waxul dëgg parce que démb huissier bi woo na ko mu ne ko nekkul Dakar tey dina ñëw ñu ngi koy wàllu yoon bi ñu doon wax ministre de la justice garde des sceaux moom ab lettre bataaxal kon la bind secrétaire général Amnesty International euh, Salil Chetty ci document bi nga xamante ni nag euh, génne na ko euh, moom mi Mimi Touré Aminata Touré mi ngi naqarlu rek méngale bi nga xamante ni Seydi Gassama méngale na ko tolluwaayu àq ak yelleef tangi Abdoulaye Wade ak tangi Macky sàll yi kii di kon jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon di sàkku ci Seydi Gassama nag mu xool ay kàddoo Daniel Diouf nguuru Sénégal mel na ni rapport bi wax ci ñeel ak ak yelleefu doomi aadama fii ci Sénégal du lu ko neex ci tënk téere bi Amnesty International fësal ci fan yi ñu weesu dafa méngale jëfinu nguuru Macky Sall ak yu Ablaye Wade Aminata Touré jiite ministère de la justice yonde ab bataaxal kii di Salil Chetty jiite Amnesty International ca Londres mu di ko xamal ni kàddu Seydou Gassama yi dañoo jéggi daayo Aminata Touré ne dara ci li rapport bi di wax jëmale ko ci Sénégal dëppawul ak dëgg gi mu ni sax dëgg gi mooy li Seydi Gassama di ŋàññi ci téere boobe jamonoy Abdoulaye Wade la méngool mu ne sax kàddu Seydi Gassama yooye ak doxalinam dafa rax politique te du luy rafetal xar kanamu kuréel gii di Amnesty International gouvernement Sénégal ci bataaxalu Aminata Touré mu ngi dellu di leeral tolluwaayu réew mi ci wàllu ak ak yelleef doomi